lu baax jarul jàng téere yi sa ruux a koy jëkk xam waaw ah sunu góor gële ca jag saaw sëriñ sëriñ sëriñ Yusufa Jóob yal na yàlla yokk leeram ci philosophie kër gi la bokk parce na ko tontu benn mbokk taalibe te dëgg la moom lu ne la ne xam nga ko ku la ko àtteloo tooñ la benn mbokk tali bi def ko ni góor gi waaw ndax xalam dagan na xalam mu ne ko noonu muy def di macc làmmiñ wi ni xaw ma dagan nam déet waaye neex na de ko neex na de moom day ñàkk dégloo fi nekk ay neex na de waaw si te looloo am looloo am loolu jarul atte téere xalam ku ne xam na ni neex na waaw koo ko atteloo nag yaa ko tooñ boo bëggul déglu daal bàyyi ko moom mu déglu waaw góor gu déggoon àdduna la waaw góor gu déggoon àdduna góor gi ndax xalam dagan na mu ne neex na de waaw loolu de laa ci xam ñàkk dégloo fi nekk waaye neex na de neex na waaw góor gi yow da ngaa jàmbure lool mu ne àdduna kër bu ñëpp dee wax booba noppi jot na waaw waaw parce nag benn jarbaatam ñuy doxantu benn xale lu jigéen boo xam ni dafa miin jarbaat bi te gisul góor dal di dab rek jarbaat bi ni ko ey eh, diw diw jarbaat bi nek fit wi génn da gor ge dafa diine bu mu upp dafa sever xale bu jigen bi ñew rek dal di dor loxo bëgg nuyu jarbaatu gor gi ah jarbaat bi dal di fekk loxom ni ko ah, di neub loxom gor gi wàññeeku ni ko dimbele ma jox ko ko de <laughs> ah waaw ni ko dimbali ma waay jox ko jox ko ko rek de ni ko ndax ba ngeen ko daan joxante daw ma ko fekk mukk waaw xam nga loolu ci ak baax la bokk ah ndax ku ne xam na ni njaboot am na ay défaut kilifa la gën a xam ni njaboot am na défaut bu mënul boole njaboot baag défaut ba yóbbu àjjana nag jaratul topp